tey nag fête d'hiver dañuy andi coowal Nabou Dash ak euh, oustaz yi moom nag daal dina génn niki keroog am ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ci yenn oustaz moom na yenn oustaz yi nga xam ne ngeen jéggal ma ci kàddu bi dañuy violer li nga xam moo i taalibe la am yenn kàddu yu ci yëkkati naan saaga na ñi naan saagul ba euh, kuréel gi nga xam ne moo tudd ànd aar daara ku ci mel ni Matar Sall daal di dem nag porté ko plainte am na kàddu yoo xam ne oustaz bi daal dina ko yëkkati ñu teewlu ko te ñëwaat. sëriñu diine la nekk dinaa dem ci daara bi dinaa fa def vidéo mag dinaa dem ci daal bi sëriñ bi foo nekk dinaa la gën dinaa la vidéo dinaa la wane dinaa wane sa kanam parce que ku ñàkk fa ne ku yow yow yaa ngi noonu sëriñu diine boobu xaw ma loo doon xaw ma loo doon heureusement que xawuma sa tur bu xamoon sa tur wees fii laay def yow yaa ñàkk fayda yow gisoo caga ju mag ji yow gisoo caga yi taxaw fii booy caga yi di cagatu ah ñoom rango gu fi xanaa gisoo rango rango ràng ñoom ràng xam ne hôtel yi la ñuy fanaan foofu la ñuy yem dara dafa safuñu dara safuleen dara kiiwuleen ah yow xale yi ndaw ay quatre ans cinq jàpp tiim leen ci pa màggatum pa yor sa kurus sa grand boobu naan damay jàngale dina jàngale dina ak simmi xale yi loolu lañ la loolu lañ la sant simmi xale yi lañ la sant dama ni parent bu fi ñàkk fayda ba jël sa doom bu jigéen jox ko sëriñu daara barki Seydina Mohamed li nga loo ci am du neex téye leen seeni doom attrapez vos enfants bëgg diine jarul lii diine gi jaratul lii de jaru ko de diine gi moom fi mu toll nii diine gi moom jaratul yóbbu sa doom internat caga ju mag jaa ngi fi caga ju ndaw jaa ngi fi ah, fa Faatumata Fuuta Tampi mi ngi fi rangu mi ngi fi yéen xanaa gisoo leen caga rangu ak Faatumata Fuuta Tampi ñu ngi fi sama baat ci kaw ah te tontu ma benn classe je n'ai rien à foutre man gisoo leen ñooñu xale yu góor yu ndaw ay xool leen xale yi quatre ans trois ans am na koo xam ne dégg naa ba mu amee quatre ans la ko violé ba quatorze ans li waraloon jéego yi nag mooy ñëw doon déposé ci plainte pelent boo xam ne ñu ngi ko jëmee ci bu kebe mu gën a siiwee ci nabu Daas réew mi da di réew moo xam ne république la nu nekk république nag moo tabaxoo noo xam ne kenn du fajal sa bopp dañ di ay sëriñu daara di doomu daara di ay wéyjuru ndongo daara nabu Daas def laayifam toog la gën a tuuti ca la mu wax mën naa ne saaga woy jur la saaga ndey jëmee ko ci sëriñu daara yi beneen pelent plainte ko ci boo xam ne individuellement la Makhtar saar moo ko signé ci turu am di daara da baax plainte yooyu la indi woon tey déposé ko fii ci tirbinal bi beneen pelent bi incha allah bu nu jógee fii mi ngi jëm cybercriminalité ndaw si dafa tooñ tooñ gu rëy sëriñ daara il faut ñu xam ñooy ñan Nabou Daas dafa def ay révélation yu doy waar jamee ko ci daara yeeg sëriñu daara yi loolu nag réew mu ma am procureur war na jug taxaw autosaisir maanaam ñun waruñu woon a ñëw tey ci tribunal mais procureur moo waroon a autosaisir woolu Nabou Daas Seras ne ko preuve yi nga am nii wax ma ko ndax preuve yi mu wax ne sëriñu daara yi lii la ñu def loolu bu fekkee ne moom am na preuve yi mu wane kuréel yi fi taxaw yëpp ñooy mànkoo ne procureur daral ci kaw ñooñu di def lu mel noonu lim tuumaal sëriñ daara yi làmmiñ lott na ci tudd ko am na ci loo xam ne mi ngi ci plainte bi danañ leen ko jox après bokk na ci yooyu rek wane ne sëriñu daara yi lépp luy lu bon ci diggante góor ak jigéen ci njaaloo ngóor jigéen sëriñu daara yi ñoo ko tasaare ci Sénégal léegi nag li ñu dul nangu mooy jël baat boobu noonu léeg taxe ko sëriñu daara yëpp ne sëriñu daara yi loolu la def te loolu benn weñ laa la bu tàbbi ci biir soow la du ñu tuur tuur tuur mi mais dañuy seppi weñ wi sànni ko Assane dégg nga kàddu yi nga xam ne moom la Nabou Daas wax noo ko jàngatee Assane lii comme guerre. toog dee ñu may bolim nag. waaw nabu de ab waxkat la boo xamante ni lu xew ma ngi cay wax wala daal day wax ci réew mi. ak lu ko concerné. ñii nga xamante ni ñoom la tooñit ci réew mi lañ bokk yor ay daare di jàngale. xaj na ñu yët ko information mu traité ko xaj na nam ko traité baaxul bañ ay plainte fekk ko ca ñu ngi ñaan daal lépp léeg suñu borom wis si ndox mu sedd ñu ngi koy ñaan ñi nga xamante ni ñoo ko plainte ah ginnaaw nangu na ni moom moo tooñ bu jégguloo nañ ko jéggal ñu demaat ci leneen daal hmm? démb gi na de nee na li mu wax dara du ci tax mu dellu ci gannaaw hmm. ndax ay baay ay kii euh, les enfants de la rue ñoom lay soutenir mais dana jéggalu hmm, je mhm. pense dana jéggalu te bu jéggaloo insha allah rabbi dañ ko war a jéggal mhm. mu delluwaat si léeg-léeg nit ki wax loo xamante ni am na mais ñi koy pelante wala ñi am lu ne metti dañ koy wax nan la amee ak nan nga ko joxee ak ndax loolu war na tey jii tey jii ñaare bu dara xewee si daara da ngay woo ñi jiitu daara oustaz Makhtar Sarr ñoom dañ di ay sëriñu daara di doomu daara di ay wayjuru ndongo daara nabu daas def laay fam toog la gën a tuuti ca la mu wax mën naa ne saaga woy jur la saaga ndey jëmee ko ci sëriñu daara yi beneen plainte dooleeku ci boo xam ne indi yal na si yàlla bis ndox mu sedd individuellement la di waaw euh, euh, Didi Nabou dee wax dëgg yàlla moom man maa ngi ko doon wax démb rek xam naa teggin moom amu ci daa mm-hmm. waaw teggin parce que nit ku am teggin sax boo gisee lu ñaaw war nga def de telle sorte que li yàlla suñu borom doon wax naan doomu aadama sax soo ko fekkee muy def jëf ju bon mhm. suturaal ko mhm. te moom amul sutura mi ngi weer nit ñi yemul rek ci euh, ustaas yi xëy na bii dafa gën a nekk loo xamante ne nii dafa dafa diis ba pare sensible voilà sens sensible yaa ngi dégg de moo tax ma jàpp ne nabu ma feebaroon na ba ñu ne euh, yóbbu nañ ko faji ji kook <laughs> mu jub s'il vous plaît waay bàyyi ma ma bu lekk sama inspiration. s'il vous plaît feebaroon na fi. ñu mm-hmm. yóbbu ko faji ji ko mu dellusiwaat te Sénégal moom dañoo tàmm nit su waxee ñaawteef rek. Mm-hmm. ay mbokkam tey jii nii suñ ko jëloon yóbbu ko police mën nañ ne génne dem génne ay kayitu dafam ne kii kat dafa dof wérut te daara bi muy wax tey ne peut-être am na ñoo xamante ne nii dañuy mbubboo. doomu daara fekk sax nekkuñu doomu daara am na ay ñawteef yu ñu fi yàgg di gis Sarr moo ko signé ci turu daaraam di daara da baax pelante yooyu lañ indi woon tey déposé ko fii ci tribunal bi beneen pelante bi incha allah bu nu jógee fii mais ba nit yi di wax est-ce que dañu jël kuréelu doomu daara yëpp daal di leen généraliser ne ñoom ñëpp baaxuñu mhm. yaa ngi dégg daara ñaata yoon la def fii ah ay nit yoo xamante ne nii da ngay gis seen doom yi sax dañ ni di bëgg teel a dugal daara parce que gis nañ loo xamante ne nii wax dëgg yàlla doy na leen inspiré na leen ay doomu say dëkkandoo seen doom di ndaw si dafa tooñ tooñ gu rëy sëriñ daara il faut ñu xam ñooy ñan euh, Nabou Daas dafa def ay révélation yu doy waar jëmee ko ci daara yeeg sëriñu daara yi loolu nag réew mu ma am procureur war na jug taxaw autosaisir maanaam ñun waruñu war a ñëw tey ci tribunal mais procureur moo waroon a autosaisir woolu Nabou Daas ne ko preuve yi nga am nii wax ma ko ndax preuve yi mu wax ne sëriñu daara yi lii la ñu def loolu bu fekkee ne moom am na preuve mu wane kuréel yi fi taxaw yëpp ñooy manko ne procureur ci kaw ñooñu lu mel noonu lim tuumaal sëriñ euh, daara yi làmmiñ lottu na ci tudd ko am na loo xam ngi ci pelante bi danañ leen ko jox après bokk na ci yooyu rek wane ne sëriñu daara yi lépp góor jigéen ci njaaloo ngóor jigéen sëriñu daara yi ñoo ko tasaare ci Sénégal léegi nag li ñu dul nangu euh, mooy jël baat euh, boobu noonu lekk tak gel bi nabu daas mhm. kii mere ko ci nga dem tudd rango ne diwkat dem leen seeti diw ndax diwkat caga la ngeen baal ma ci kàddu loolu rek tooñ la loolu tooñ la xam nga loolu tooñ la ba léegi ñoom gisaguñ seen réponse waaw dégg naa ni nag ràngu moom du tooñ waaye bis bu su jotee man xam naa ne dina tontu te Nabou Dash mi lii mu wax dañ koo war a woolu mu dem ba mm-hmm. ci police mm-hmm. fañ leen di war a régler seen problème mu génne preuve yi muy wax te mu rectifier waat waxam di daan ne waxuma ñooñ daara gépp mais nit ki ma gis ni def na lu ñaaw muy mbubboo doomu daara moom mii kat moo ne nangam ak nangam ak nangam la ca war yëpp ñu def ko loolu mooy nit ku am kilifa mhm. nee nañ sax euh, ki nga xam moo de Nabou Dash bàyyi image mooy Nabou Dash génn na daal di jéggalu mais tamit est-ce li mu wax en tant que moromu jigéenam ndax nag boo nee diw caga la day tëdd ci hôtel yi wax Fouta Mata Ndiaye tampi tudd nga xam moo di rangu te nga ne jigéen nga yaa ngi sunu yi nga xam ñooy daara est-ce tamit jot na moo tam soutenir jigéen ñi suturaal jigéen ñi comme ni ko ma jigéen wax tànk nee na amul teggin. waaw nabu moom <laughs> nabu moom kaa la rek quoi c'est que nabu daal nabu vraiment bu ñuy wax euh, maanaam bu ñu naan réseaux sociaux yi dafa am avantage ak inconvénient nabu moom. c'est que sëriñu daal yi loolu la ñuy def te loolu benn weñ laa ne la bu tàbbi biir soow la du tuur tuur soow mi parce que mais dañuy seppi weñ wi sànni ko euh, nabu man avant lii sax. Mhm. c'est que ni muy relaté vie am ci réseaux sociaux yi ma loolu moom a posé problème su ma ji ana ay mbokkam. c'est la question que je me pose quoi. déedéet nit mënul nekk mi ñu nekk nii. yaayam en tout mhm. mhm. bi suba sa yaay. dootu la bàyyi nga ñëw ci plateau bi. di di mais Assane noonu Assane mi man mi sam man sam bopp noonu. mooy ñëw doon déposé réew mi loo fi nekk nekk kilifa ne ñu ngi ko jëmee ci Zeynabou muy ci wàllu cëriñ mu gën a ci wàllu maanaam su am ñoo xam ne dina am sax kersa booy am ci moom ma loolu laay laaj dama ne nabu ay mbokkam ndokkam mbokk bu fekkee dañoo tële mbokkam bu nekkee dañoo dem ba tële ci moom nañu génn ñu ne dañoo tële nit ñi xam parce que nit ñi ñu ngi blâmer ay mbokkam ah, man mii surtout yaay mi nekk ak moom non dégg nit ki amal ay milliards ma jigéen dee ma jox may dund dee ma jox may naan neel sax ba mu bàyyee ma torox ndem yàllaa ma yore mais teewul su ma la war a wax dëgg naa la wax dëgg anaay moo mhm. dafa tooñ gis nga réew mi réewu droit la réewu yoon la euh, ba kii ma jigéen Didi mhm. amul benn nit nga tudd ustaas nga tudd sëriñ nga tudd ministre nga tudd loo mën a doon ñaawteef yi nabu wax ne def nga ko nga def ko ñu porté la yoon na du la amul dañu wax ne dëgg dong nag xale bu am ñaata la wax xaw ma ñaataat xaw ma six xaw ma sept ans mm. ko violé ko ñaata yoon xaw wax ba dagg saaga ndey mm-hmm. c'est que pour man a waa daara ji waruñu woon sax jóg waruñu woon jóg non xam nga léegi nag gis nga gis nga waxaaral waxaaral ma xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw gis nga réew mi gis nga ma jigéen Sénégal moom suñu julliteeg ñu dem jàngi alxuraan ak yooyu nit mënu cee wax ba pare liñ ci am ñu liñ ciy def ñu def ñu bàyyi ko mm-hmm. surtout nag nabu daas nabu daas tuuti na torop pour naan nit ñi di conseil nit ñi naan ay jàng alxuraan jar jaratu maanaam yenn yi jaratu ko xam loolu na waxi na waxi nabitage boobu noonu mm. amul benn sénégalais bu mën a influencé tey jii boo demee ci daara yi daara yi tey la gën a fees nit ñi tey lañ gën a jël seen doom jox waa daara yi xam nga lu tax ma ne waruñu woon porter plainte waa daara bu ñu nangu ñu andi leen ci débat yu primaire yi. Mm-hmm. léegi dañuy bàyyi ku jug rek wax oh, lu la ne ma jigéen ma jigéen déggoo li ma la wax de c'est que li ma lay wax c'est-à-dire que dafa wax yoo xam ne amul effet. wax boo amul effet jarul jox ampleur est xam nga ne bu bu Matar Sarr porte problème beneen na bu daas ne wax ko dégg est xam nga ko te man bari naa ci ay morom. Mhm. ndax man du ko suivre. waaw soo seetaanul live ba ko suivre. Mhm. wala dafa am nit ñoo xam ne fii Sénégal du ma tudd tur. du ma leen suivre ci live mukk ci àdduna. dem bay saaga ndey. waa déggul ma la xam nga après loolu yëpp après lañ ko dégg. Mhm. plainte bi moo tax après loolu yëpp nit ñi dégg ko ndax tey bu ñu nee diw Matar Sarr c'est oustaz la bu crédible bu nit ñi di déglu. ci diine ci lu bari bu ñu nee Matar Sarr na porte plainte nit rek nit ñi dañuy dem naan waa lan la nit ki wax ci loolu day amplifier wax ci alors que Matar Sarr bu la ah, tuuti naa ne saaga du problème mu nekk jur a clair comme comme loolu nga wax am na ñu yoo xam ne maar day taali c'est-à-dire que pour man nañu jàll à ci l'essentiel nabu Dash li ma wax ci début mooy mooy dégâts collatéraux yu réseaux sociaux yi. Mm-hmm. moom moom Nabou moo koy incarné. pour man ñi waroon porter plainte Rango la ak Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. pour man ñaar ñu waroon dem wax na ba saaga ndey Nabou day wax li sànni ci jaww ji ci dul bi kenn. en tout cas Fatou Fatou nit ñi lay jéem conseil pour ñu bañ a yóbbooti seen doom daara Nabou Nabou Dash dafa mën a conseil nit fii ci mbirum daara ba nit ki jëfe ko waxam ci amul njëriñ wax na ba débordé jàll na wax na ñi mu accusé Rangou ak Fouta Tampi pour man bu fi nekk sax di jokkalante ndax moom wax de. waaye nee na leen tontuwul kenn moom ci biir wax jox na leen. beneen moo ko signé ci turu daaraam di daara dama plainte yooyu la ñu woon tey déposé fii ci tribunal bi beneen bi incha allah bu ñu jógee fii lu ci ngeen après da lay mel ni kuy ruube comme ni ruube oustaz rek ngeen di ay bëgg naa jëkkër oustaz mu wax réew mi ñaari défi la ñu nekk fi mu toll nii ñu ngi coupe d'Afrique suñu équipe di football dañuy ñaan ñu am ndam beneen défi bi ñu ngi dem mooy défi bu majeur ñu ngi dem ci ay élection mm-hmm. réew mi ñëpp gis nañ ni muy doxee sénégalais yi historique la pour ñu régler seen dëkk ndax nit ñi moom sénégalais ah, kii bi euh, nit ki dafa am moment yoo xam ne ci la mën a régler dëkkam mm-hmm. am na yeneen moment yoo xam ne ci dara am na comme li ngay wax ne détenu politique nga doon ñu ñëwaat ci dafa da ndax réew mi noonu lañ ko tënkee dafa moment yoo xam ne nag kenn mënu la ci def dara mooy jour vote la muy le 26 mhm. nit ñi dañu préparé ci loolu mais ay Nabou Dash wax na kii lii wax na kee ñu ñuy divertir ñuy génn ñu bëgg a alimenter mhm. kii réseau yi ah euh, mu wax ñu ne bu ñu ko wax dara mu toog keneen génnaat fële wax lu gën a pire loolu keneen ak keneen génnaat fële def la léegi kañ la réew mi di dem ci yoon ñu xam na ma ne réew mi Didi baal ma ma daanu fa waxaara waxaara waa d'accord mais tey gis nañ ne juste bi ni muy doxee dafa xaw a coox ñun ñëpp remarqué nañ ko réew mi dañu soxla mu tegwaat ci ay raay mm. am nañu date pour teg réew mi ci ay raay bu ñu raté date boobu noonu bu ñu nangu ñu ñuy divertir loolu laa wax dama ne la Nabou Dash li mu wax ci ay jëkkëram ak ay sëyam loolu moo gën a garaaw foofu te ñooñu waxuñ ko ci dara. alors vie personnelle vie waa léegi nag nañ ko bàyyi ma jigéen Nabou Dash buñ ko jàppee tëj ko lan la fan la yóbbu Sénégal léegi du moment yeneen sénégalais yaa ngi fi waa jël leen jàpp leen yóbbu leen mandat de dépôt leen loolu tamit ci wax nag ah